waaye damaa bëgg bii yoon mu nekk visite officielle boo xamante ne dootu bokk du bokk ak na ngeen fa demee bu njëkk na ngeen fa daan demee baax na lool liggéeyal Sëñ Tuubaa waaye nag damaa bëgg mu nekk visite officielle léegi loolu moo tax tey jii ngeen gis bi ñuy ñëw Mabrouk tey sëñ Koso Mbakke mi di doomi sëriñ bi nga xam ne mooy doomam bu mag tey ànd ak sëñ Xaadim mii nga xam ne jarbaatam la sëñ bi yebalu leen dara lu may bis bii ak fii nga xamante ne fi lañ ñëw tey ñu dikk ci Mabrouk fii nga xam ne fi la doon jàngee fii nga xam ne itam mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk Touba tey amul kër goo xam ne mën nga faa dugg te fekkoo fa koo xam ne jàngee na ci barab bii loolu moo waral ñoom ñëpp ñu ñëw loolu itam mooy li nga xam ne moo waral bis bi am solo lool ndax sëriñ bi wax na ko sëñ sëñ sëñ Bachir wax na ko sëñ Koso man mii wax na ma ko wax ko Mourtala bu sumi kenn ku ci ne woona ay yoon ne bis boobu na ngeen xam ne dafa maa ñor bis bu ma ñor la loolu nag moo tax ñuy dikk di dikkaat xëy na wax gi muy gudd jubluwuñ ci dara waaye nag ñu fonk sëñ bi ak fonk lu mu fonk rek ab taalibe bi moom bu fekkee li muy wax dëgg la ci moom dina dafa war a fonk li nga xam ne moom li ko kilifaamu wax politique bi sax ku ci nekkoon bu la président waxee dara lam la wax da nga ko wax waxaat ko pour bëgg ñëpp xam ne fonk nga président ña ko fonk nag mën naa am ñoom duñ ko def muy dara waaye ña nga xam ne moom la sëriñ bi wax lu jógee ci moom ñoom loolu duñ ko woyofal ñooñu ñoom danañ ko fonk danañ am fuñ ko teg kon nag moo tax itam ngeen gis délégation bi tey demee nii mu demee asalaamaaleykum wa rahmatullah